président Bougane ba Dany mi nga xam ne attaqué nañ cortège am démb loolu dama koy wax waa opposition bi yëpp di ko wax sénégalais yëpp gis nga boroom yar mu yor ab yatam ku ne ku sëqat mu dóor ku jàpp ni man mun naa toog sama coin parce que ñëwagul ci man kële lay dóor bu yóbboo nga xam ne su paree ci kooku ci yow la ñëw waratuñoo nangu kenn ci Sénégal ñu jaay ko doole xoqatal ko wala ñu ne moom Macky Sall am na sañ-sañu def ay activité am ak suñu alalu réew waaye keneen amul sañ-sañu def activité fii ci réew loolu daf jeex na ci Sénégal li xew Fuuta nag ñun ñëpp a ko gisandoo defe naa su dee am na projection sax bu ñu mën a def li xew Fuuta ñun ñëpp ko gisandoo fu ne nag jaar nañ fa pour mu bañ a fës ci Sénégal waaye vingt unième siècle bii ku foog ni mën ngaa fexe ba verrouiller information parce que am na peut-être ay ay ay moyens yoo xam ne mun nga koo tëjee fenn gis nga tey réseaux sociaux yi moo tax mu ciy bëgg a rey boppam réseaux sociaux yi li mu am ci suivi kenn da ko am lu xew Fuuta benn benn amateur yor euh, euh, téléphone am filmé ko dugal ci Facebook balaa ñu naan deux heures de temps deux millions de vues mun na cee am kay tey kenn mënul verrouiller information boo maîtriser lenn tam ba jàpp ni bloqué naa fii bu doon loolu am na ñoo xam ne tey du ñu exister du ñu exister may woo ndawu Sénégal nag nañu continuer ci noonu lu am rek nañ ko jël ba pare nañ ko tasaare ba mu egg fi mu war a yegg yépp waaye li am Fuuta doy na waar mooy amul benn réew ci àdduna réew bu normal réew bu normal ci àdduna boo xam ne l'institution présidentielle présidence institution la moo tax ñu aar ko aar aar aar ba léeg su nit waxee sax ñu woo article quatre-vingt institution boobu sécurité mënul nekk ci ay loxo milice privée loolu amul fenn ci àdduna loolu de ñu ngi koy doog a gis nga jël institution bu ne ni présidence de la république daa di jël sécurité am kaaraangeem nga ne léegi damay dem recruter ay nervi yoo xam ne amuñu benn responsabilité vis-à-vis de l'État du Sénégal ne leen nag yow yaay assurer kaaraange président de la République état de su eggee foofu mooy état amatul nërmelu état mënul weesu loolu un président de la République en fonction bu dem recruter benn armée de Banyamulenge taxaw sa kaw oto gis sa ministre privé di attaqué ay sénégalais yoo xam ne defuñu benn tort lu dul sa échec politique économique et social lañ ñëw taxaw fàttali la ko ñu leen di dóor sa kanam nga taxaw sa oto di jubilé loolu mi ngi doog a am ci àdduna guléet ah man de mosuma koo gis peut-être ci jamono dictature yu njëkk ya daan na am loolu mbokk yi lu garaaw a garaaw la lu ñu mënut a nangu la waaye ñu war cee am ay jàngat ñu war cee am ay jàngat bi ci njëkk mooy dafa confirmer li ñëpp doon wax bi ñu génnee ci événement mars yi moom dafa woo ay ministre am ñu yooxu dëkk bi yépp daal di def seen soi-disant nuñ ko tuddee sax mémorandum nee nañu ñun ñooy terroristes yi ñun ñoo fi andi ay forces occultes mooy ay ay ay euh, ay Samba yoo xam ne dañ leen a recruter fay leen pour ñu taal réew mi ñu ne ñun ñoo taal réew mi ñun ñoo reylu nit ñi bañ leen tontoo dañ leen ne xale bu am ñaari at sax ci Sénégal xam na ne li ngeen di wax ni waxu ko daanu si saret la ñépp xam nañ ni yéen yéen a def mbir mi waaye teguñu ci ñetti weer mu fi mu firndéw tey moom mi jiite mbir mi moo dem ut ay Samba booyam ay force occultam di leen yónni ñuy dal ci kaw sénégalais yi loolu premier jàngat bi la il n'y a terroriste au Sénégal wala qu'un seul apprenti terroriste mooy Macky Sall président de la République ab terrorisme nag bu yor les moyens de l'État kooku musiba loolu dañu bëgg mu leer adduna bi yépp nag wër na fa ne ñun ñooy terroristes yi dem na ba daal di def dénonciation États-Unis nga xam ne ñoom dañoo sensible trop ci lépp lu jëm ci waxu terrorisme foog ni fi ñu jaaroon ak Assane Diouf dinañ fa jaar ak Ousmane Tounkara ba ñu demee ci procès bi Ousmane Sonko lañ fa yóbbu dossier yépp laaj leen journaliste Pape Alé Niang mi newoon ci procès ba ñooñu ne leen kii du terroriste te duñ ko delloo loolu nag ñaari kan bu ñuy jaar jaamarloo nga ne nga jiiñ ko ca lenn ñu ne la kooku du loola lañ la bëgg delloo mooy yow moom yaay terroriste bi fu ne wër nañ fi ci àdduna gis nga lii lii ay ay ay ay fax la ñu envoyé seen ambassade yépp boole kook seen mémorandum ne leen su ngeen demee wax leen nit ñi ne Ousmane Sonko mooy mooy danger Sénégal moo bëgg a taal réew mi ku bañ Sénégal la ku bañ àdduna la terroriste la mi ngi nii ay ambassadeur ay ambassade la jóge ñoo ma ko jox waaye lii firndeel na nii archive yëpp a ngi fi te dañ ko jaarale fi mu war a jaar ba mu egg fi mu war a egg qu'il n'y a apprenti terroriste parce que su ma nee apprenti li ma ci bëgg leeral mooy mënul terroriser les sénégalais loolu tam dafa war a leer su dee loolu la def ci boppam bu yóbboo mu mu teggi ko bu yàgg parce que dafa xamul jaar-jaaru réew mi dafa xamul lan mooy peuple sénégalais bu ko xamoon dina xam ne mënul terroriser sénégalais yi.